thank you salaamaaleykum mbokk yi di leen ziaraat bu baax a baax di leen béggewaat ah, di jéggaluwaat ah, ci retard bi dañoo mën tuuti retard mais yegg si nañ ci jàmm ak salaam di ziar kilifa kilifa aada di béggewaat ñëpp di baaluwaat ñëpp ak di baalaat ñëpp ak di ñaanaat ci réew mi jàmm ak salaama ah, taw feex ak tay saxaatatul daare ni comme ni ñu koy waxee saa su naan leen saa su nekk suñu reportage jógati nañ mais tey ñu ngi fekk si famille boo xam ne macha allah ñoom tamit ah fu ñu jógee rek day daal di neex bu ñu ñëwaatee tamit day daal di neex sama gaay yi egg si jàmm bi ngeen gis tey xale yi bëgg lu show lu rafet dàll yu baax yi aca daw si leen mu ngi ci sama waa ji eh, dañuy daal di dugg ma wax leen fan la nekk ah aca ñu commencé ci bisimilahi rahmaani rahim jeexaleek alhamdulilah la boo leen bëggee dàll bu fashion daw si leen ngeen seet si ko ah. ah nee naa la mooy soppe na bi tubar fa kàlla xale yi dàll yu baax a fi am ah, yoo xamee ni nii ah, nee naa la boo bëggee caraxu tàngaay daw sil nga ñëw seet si ko mu ngi fii tout près tey yow mi nga xam ne da nga am xeetu tudd wala réception loo am rek di ko def tubar fa kàlla gis nga xeetu kubu dàllam daw si leen xale yi sañse rek la ñuy def te tubar fa kàlla doo leen ragal de te borom boutique bi nee naa la du ragal daw si leen ngeen seet si ko ayca soxna si lii boo amee tudd tubaar fa kàll la ah man sax bëgg naa am tudd instant bi ah, daw si leen ngeen sàcc ci daal yi gis ngeen kubu daal lam amul fenn nee naa la sama gars yi jaay ñu chinois original la ñuy jaay amul fii dara lu fi nekk pakoti daw leen ngeen seet si ko gis ngeen pochette ba ah, tubaar fa kàll la nee naa la lii eh, jongo moo koy téye ah, ragal du ko téye tubaar fa kàll la sama gars yi daw si leen ngeen seet si ko ba léegi maa ngi ci biir boutique bi bàyyeegu ma gis ngeen lii naa la soo defee sa robe bu ne muut bu am classe ah àndal ak sa waay di koy xale yi temps yi da ngeen a sañse rek ngeen di def ak noppale ko gis ngeen xeetu daal bi lii xam ngeen ne dafa tubaabe te dafa fees mi ngi tuuru daw si leen foo leen ne ayca tubaar fa kàlla yéen a ngi gis ba léegi waaye nee naa la tungane du teew ñuy nataal amul daraay chinois lépp li fi nekk original la tubaar fa kàlla borom boutique baa ngi nii sama waa ji maa ngi lay ziar. Eh, maa ngi lay ziar sant ak sant ak ziar rek. noo def. maa ngi sant yàlla yi ma gis xeetu dàll bu nekk ni ci boutique bi loo xam ne nii xale yi euh, ñu ngi commencé yuuxu ndax sama gars yi nee naa la nii lañ nekkee euh, kër ndaanante bi bu déplacé woo xale yi dañuy gis li ngeen di jaay gis sañse yi daal ciy gis seen bopp man mii taxaw sax gis naa ci sama bopp noo leen ko dundee waaw non content rek parce que ñoom ñun bëgg daal xale jigéen yi defar ba mu baax loolu leen lu rafet rek leen bëgg loolu laan leen bëgg daal mais bi lu waay bëgg ci daal ba rafet incha allah boo ñëwee da nga ko fekk lépp lépp nga fi daal incha allah mais gis fi xeetu dàll yu nekk te gëm naa ne dàll yi ngay jaay seeru su ma la déggee ndax euh, butigu soppi na bi day def lu baax ndax soppi na bi mi ngeen ko waaw ndax ñun ñun am yeneen te benn ko gënal ñun Seydina Seydina Mohamed rek moom lañ bëgg moom lañ jox suñu lépp ba jaax tak tak tak yeneen bi rek lañ bëgg soxla ñu dara ku dul yeneen bi ak waa kër Seydi Hadji Malick boutique bi boo gisee amul dàll kese am na xeetu jàllaa yaa ngi fi xeetu bisu yëpp a ngi fi non collaborante ak soxna si ba mën a nekk ci loolu di liggéey. waaw soxna si day comprendre xam ne commerçant moom ñëpp lay xam. ñëpp lañ def loolu quoi. lan ngay wax kër Ndaanaan TV déplacé ñëw boole la ci lu mag lii. waaw Ndaanaan kontaan si ñoom man bu ma soñoon nag vraiment ñu ëpp doole sax Walfadjri rek si si ak TFM loolu laa leen yéene quoi. ngeen dem ci kanam kanakam yàlla mën na ko yàlla na ko def ci barke Sidi Wujuudi waa alimu suut bil ahmad bil mahmoud bil xadmi bil rida yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi gis nga nee naa la tey ji baax rek am solo fi ñu njëkkee si ay mbokkam lañ tubaar fa kàlla mu ñëw dëggalaat ko wanewaat boppam baax oyof yëg nit ñi xam nga ñun ñi di wax su suñuy bët la ñuy am te dañuy xool dañuy gis tubaar fa kàlla lii mooy affaire bi mais tey dama koy daal di mayaat tuuti loo xam ne nii daf ma koy wax ci diggantee ma xale jigéen ñi tey nit ku bëgg dàll te amul moyen bu mu jëndee dàll bu am classe nan nga koy defal waaw mais bu ko neexee mën na ñëw nu aar mi dugal par ndànk ba mu mat mu dem soit vraiment vraiment waaw. tey looy tàggoo. li may tàggoo gërëm leen ñaanal leen ngeen ngeen yom dem ci kanam a kanam kanam kanam ngeen euh, sut télé yëpp ci barke yenente bi yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko def. tey suñu diggante du yem fii ba xam nga ne jàpp naa la. ñoo fii la ëppee man maa ngi gën a jàpp yéen ñëw ba ñëw defal ma lii yéen foog ma ñaana leen. dama bëgg ngeen raw TFM raw Sud FM raw euh, RT euh, kii TFM RTS ñëpp dama bëgg daal yéen daal gaa yi dégg leen ci kanam kanam. bëgg nag sëriñ Fallou lool sopp nag sëñ Babacar sama xol bitig bi nag tudd koom nekk ci centre commerçant bu Demba Ba moo tax bu ma xëyee damay ñëw di fut si lu ma am ngir jàpp jàppale njaboot gi rek moo tax may ñëw. tey yaay ma gis na tey li lépp lu bébé di soxla rek am na ci boutique bi tey boo buñ la mayee première njëkkee dangay ngay daal di daw ñëw ci boutique bi euh, jënd paan jënd xeetu sañse xale bébé yëpp a ngi fi euh, tey nooy dug dundee sa diggante cliente waaw client bu ñëw nag moom yàlla defal na ma dal goo xam ne client bu dikk dañ la ak la waxtaan ak yow li nga bëgg ñu yombalal la ko lool nag jaala ko ci lu yomb ndax jullit bu ne fam yërmande même bu jullit sax yërmande am ndax ki nga xam dafa jóge këram am lu mu bëgg teraanga ñëw ci yow yaakaar kenn ku dul yow war nga bu dikkee nga jàppale ko te yàlla tax woyefal ko njëg gi lool njëg woyef rek moo fi ne ak yërmande waxee sama yaay mu ngi ci boutique bi yére bébé mu ngi fi nee naa la paan yi nga xam ne nii bu ñu la mayee njëkkee da koy daal yóbbu defaral xale bi ba mu baax valise yaa ngi fi xeetu sañ sa xale yëpp ngi fi nee naa la yaa ngi nii sëru njaago yaa ngi ci buur boutique bi nee naa la lépp loo xam ne nii njëkkee da koy soxla rek tubar fa kàlla daw si seet si sama yaay jaxumpa xel koom la bi tudd daw leen ngeen seet si ko mi ngi fi di jaay xeetu sañse boo ko fi fekkul di nga fa fekk euh, maam xaadim ca boutique ba mu daal di gérer moom tamit jàppale yaayam mu nekk koo xam ne nii tubar fakala nee naa la doom bu nekk loolu lay ñaan sa waajur fu nekk rek nga nekk ca wetam di ko jàppale gis nga ko yëre bébé yaa ngoog sama gaay yaay tey nga xam ne dëkk bi euh, fi nit ku ñëw yor lu tuuti bëgg defar paan ba mu baax noo ko koy defaree ba mu baax bu dikkee rek ma jàppale ko defar ko mu baax ndax bitig bi bëgg falloo fi ne sopp sëñ Babacar kooku day am yërmande te dëkk xel koom bi nga xam ne mooy sëriñ Saaliwu dëkkub sëñ Saaliwu di xel koom njaaga sëriñ njaagoo ngi fi jàlle bi xale yi Eh, rob bi mag ñi jiin yu mag jiin yu ndaw yu góor ak jigéen yëpp macha allah ku ñëw dinaa la jàppale defaral la ba mu baax te ngu rek laay jaay. yaay tey lan ngay wax kër Ndaanaan TV seet si la. Ndaanaan TV kontaan nag ci moom xam ne ñëpp nañ daw publicité sunum njaay ndax ñoom am na yërmande xale yu yaru yu am ak dal ak tey ñoo ci nekk sama gars yi yéen ko dégg suba ci kàttanu sunu borom di ko seetaan sama yaay la moom butigam mu ngi tudd xel kom tubar fa kàlla bëgg sëñ Fallou ah, di soppu uh, sëñ Babacar dawul si leen lépp ngi ci boutique bi xeetu dàll xale yaa ngi fi xeetu sañsee ngi fa lépp mu ngi fa sama waa defaral na sama yaay ba mu rafet tubar fa kàlla ñooy yaay yi nga xam ne nii daw ñu daay ñu ba ñu toogee ba tey bougé wuñu ndax liggéeyal seen doom kon ñu ngi ñaan sunu borom bàyyi leen fi ñu yàgg fi te sama gars yi léegi léegi ci keneen tey ah, ñëw naa ci boutique ruq Serigne Cheikh ah, centre commercial Elage Euh, Souleymane Diouf ah tey moom lañ seet si ñu fas yéene waxtaan ak ah, borom ah, boutique bi ah, ñu gis si xeetu tuba yu rafet yoo xam ne yu sañse xale yu góor yi bëgg sañse dàll bu baax daw si leen ngeen dugg si si ruqu Serigne Seex moo fas yéene daal di dugg waxtaan ak moom sama gaay ay ca ñu dem. ayca salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay ziar. noo def. maa ngi sant yàlla tur bi naka la. man Barhama Seye. Barhama maa ngi lay ziar bu baax maa ngi ma ñëw seet si la tey ah, ci bi ruq Serigne ma ñëw fekk fi xeetu sañse bu nekk mu ngi fi pour xale tey lan ngay wax da xale yu waa ruq Serigne Seex bi ma ko mois de mai le premier mai laa bi quoi nekk ci di maa ngi ci am ay clients macha allah damay jaay ay dàll ay jean ay t-shirt mm, cap lépp laa jaay quoi felt bàyyi ma daal lépp lu góor di sol laa la ma koy jaay. d' accord ma gis ne lépp lu góor di jaay yaa ngi koy ay jaay euh, di ko lu lépp lu góor di sol yaa ngi koy jaay euh, tey ma gis fi xeetu blouson yoo xam ne ay marque la mais defe naa li ngay wecce koo seerul. non seerul bagage yi ay bagage turki la dama koy jëndee turki indi ko fii dan ma koy dugalal man déwuma mais dan ma koy envoyé sama benn grand moo fa nekk dama ko transféré muy ñëw ma koy jaayaat dañuy liggéey ma ak moom baax turki la nekk waaw ba ma fa demee yàggul mais lu ma am dama naan ko dugalal ma bagage mu ñëw mais bagage baax la may indil nag may jaay nice séerul lu dugalee da nga koy daal di envoyé waat. dama koy envoyé waat waaw moom dafaa nekk di liggéey man nag si laa gis muy liggéey man na ko yaa ngi foofu mu waaw man na ma lay jox xaalis nga may dugalal ay bagage mooy mooy dugalal bagage ma koy fay xaalisam. mais gars yi damay dégg temps yi ñu naan dëkk bi neexul neexul est-ce que gars yi réellement ñu ngi ñëw di jënd yére ak daal. si si ñu ngi jënd ay yére sant yàlla neexul boo déggee am na nañu neexul si ñoom mais man ma alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax parce que maa ngi si sutura bu baax a baax a baax maa ngi si jaay maa ngi si am sama wéccat maa ngi si suturaloo bu baax a baax a baax waaw ngi si mën a fay place bi <coughs> maa ngi fay place bi chaque weer maa ngi si dund di fay sama lépp lu may def incha allah tey ah, su ma la déggee nga gis ne xale yu góor yi ah, tey parfois nga gis koo xam ne ni ah, doole ji matul mënul jëndal boppam lépp dina am loo xam ne da kay dese ba ñëwaat wala di nga ko ko nungul wala doo ko nungul waaw waaw am na ñoo xam ne bi ñëwee naa leen bàyyi ñu bi fayee ba pare bi desee ay mën naa leen bàyyi ñu dem parfois sama may leen ko parfois tamit ñu bi xawee bari ñu envoyé ma ko Wave wala Orange Money mais am na ñoo xamante ne tamit mooy loolu ñëpp bokkuñu yam waaw. dëgg la euh, ma gis fi tey xeetu dàll bu nekk euh, ci boutique bi gis fi xeetu yëre bu nekk mu ngi fi te lépp marque la euh, su ma la déggee kon jaayoo fi daraay chinois. non non non man jaayoo ma chinois de original laay jaay. original nga jaay wóor na. moom original lay jaay mais rox sëriñ si yàlla tudd mais tamit ñëpp a si jënd am naa client bu ne. am naa client yu bëree bëri macha allah samay gaynde ñëw jënd dem. baax bi ci yemoo ci su ma la déggee yemoo ci VIP defaloo VIP kese ñëpp ngay defal te yàlla rek tax ndax euh, ki nga ko tuddee. ñëpp laay defal quoi ñëpp ku am ak ku ñàkk ku am lu bare ko sa loxo gàtt lépp ñëpp laay jàppale ko waaw dangay gis ku ñëw jënd lu bari sax moom jël ay calcium may la ko jàpp si affaire yi quoi parce que affaire yi jàppalante la rek kon loolu soo leen déggee sama gaay ci famille bi la tubar fa kàlla nee naa la ci lu mes frère gi ñu njëkkee woon boobu ba tey tubar fa kàlla ñoom la ñu mel ndax nee naa leen benn kanam la ñu am saa boo demee ni nga leen di fekkee chaque jour moom nga leen di fekkee kon loolu mooy euh, dëggute ak parce que nit ki nee naa la looy liggéey du tee nga nit ki di nga reegu nit ki ba am li nga bëgg te nee naa la kanam du ko tëjal mu xam ko waaye tubar fa kàlla ñun fu ne la ñuy dugg lu ne la ñuy gis mais suñu gisee tey famille bi ñu jaar ba yegg si euh, moom lañ fi fekkaat macha allah kon ñu ngi ñaan suñu papa suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi maaleykum salaam sëñ bi noo def. maa ngi lay ziar. maa ngi sant bu baax da nga ñëwoon waaw dama ñëwoon di jënd si yére ndax taamu naa fi di fi jënd see yére saasu ne te yére yi baax na daal di macha allah te prix bu mucc ay lay doon. xanaa bala may sa nga. bu mag. bala may sa day bëgg àdduna. bu baax sax bëgg boppam. bu baax. Ah, di dox ci lu baax. bilaay walaay. di ko wax. te di ko jëfee. di ko jëfee. te daal di koy wane. waaw gis nga lan nga fi doon jënd. waaw tey ji dama ñëwoon doon jënd si benn jiin ak benn t-shirt ndax suba dama am benn programme boo xam ne dama fa war a wane sama bopp ak benn dàll yoo xam ne nag day muccaay ndax euh, sama sama amoore bàyyi waaw la bisam bi daal ma war faa dem am nu ma fa war a mën a def. sa amoore. moom moo am bës. waaw am bës. nga war a fa dem jàkkaarloog moom. am nu ma war a sañseel nga ko. ah sañse na bala may sëy duñu ragal de. yee pire. Ah, gis nga. ayca ñi daal di dugg rek xool liñ bëgg rek. lan nga bëgg. waaw bëgg naa benn. man maa lay jaay. waaw ah, bëgg naa benn jean bu bleu bu bu mucc ay. Hmm. boole koog benn t-shirt bu. xoolal ban nga bëgg nga wax ma ko. waaw man gis naa fi bula boo xam ne luqi na sama bët de. muy ban loxo ah, bleu bi nii. waa ndox mi saf na. waaw saf na. gis nga bleu bi waaw xam nga bleu bi boo ko booleek blanc day génn ndax euh, blanc bi daa génn fii da kay sàcc ma daal di koy booleeg benn t-shirt bu blanc boobu. waaw noonu lay demee ndax ndax xam nga dañ jaay ñooñu. ban t nga koy boole. bii bii xam nga bii am na blanc ak bleu léegi da koy booleeg daal yoo xam ne day jël bleu blanc. waaw wala noir boobu waaw noir boobu mais fii boo fi ñëwee da ngay toog sax ne ko Ibrahima damaa bëgg a sañse mu solal la yére yu baax macha allah. mais lii naa la wax suñ suñu génnee. ah waaw fii de d'habitude musul cher i bagage nag xaw ma nag tey yow boo ñëwee nag nu muy mel. dama koy wàññi ba mu wàññeeku. ah. kon jeex na. sama waa baa ba bég nga. waaw bég naa lool waa Kër Ndanane TV bég nañ lool. ayca ca comme ni ma leen ko waxee ba tey maa ngi ci ah, boutique bi ba léegi génn ma fi mais sama waa tey ban contentement nga am ak ban yëg-yëg nga amaa tey. non tey sant yàlla kontaan naa bu baax parce que <clears throat> ku nekk lii lay ñaan yàlla di liggéey ba di feeñ ci ay télé di am ay client mu yokkute quoi parce que ñun ay ndaw lan quoi dugguñu ci gaal yi di mbëkk yi ñu dara dañuy toog fii yàlla nag moo yor lépp ku am yàlla la ku ñaax yàlla mais boo amee sa lu ndaw rek di si nekk ci góorgóorlu ku lay jàppale fekk la si jàppale la ku la jàppale tamit nga nekk sa yoon rek parce que yoonu góor moom su yoonu ndaw du yomb ay faqasalu mais da ngay góorgóor rek ànd ak sunu borom bi boo defee noonu incha allahu taala di nga si génn maa ngi ci daal maa ngi góorgóorlu bu baax marché ambulant laa njëkk nag def naa ko plus de huit ans def naa ambulant huit ans ba feebar fi def lépp mais yàlla suturaal na ma ba am naa place maa ngi góorgóorlu waaw tey lan ngay waxaat tey Kër Ndaanaan TV. Kër Ndaanaan télé bu macha allah télé bu taw féexee tele bu baax yal na yàlla yokk ko ba mu mel ne màkkatal mu ma kaaba ga su ko defee rek ñëpp ngeen gën a siiw si Sénégal daal si àddina bi yëpp ñëpp di leen siifa parce que lii moom dafa rafet day tax tamit day tax ñu gën a góorgóorlu parce que nit boo ñëwee sa doomu réew. di ko wane di ko jàppale day gën a góor góor danaan li ma doon def benn naa yoo ko ko fukk yàlla ñu yàlla suturaale si barke yeneen bi waaw. sama gars yi ni ma leen ko waxee ba léegi ah, tey nee naa la reportage lii ko tax a jóg bégal gars yi ba ñu bekk ñëpp xaj nañ ci jàppal na yow mi may seetaan maa ngi yegsi si yow léegi ci sama gars yi ah, xam naa ne dañuy daal di génn rek daal di dugg ci keneen kon léegi léegi